ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaara macha allah bëgg a ak yéen téere bi nga xamee ne mu ngi tudd zaadul muslimu saxiir muy tekki yóbbalu julit bi nga xamee ne ab tu tànk la ngir mu xam fiqul islaam yi muy xam diineem tey nag ñuy commencé bunt bu njëkk bi muy baabul miyaahi muy euh, bunt bi nga xamee ne soo ko maîtriser di nga xam ban ndox nga mën a utiliser jëfandikoo ko pour jaamu yàlla nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala boo demee ci suratul maida muy surat numéro 5 boo demee ci aaya juróom benn di nga fekk muy wax naan yaa ayuha alladina aamanu ida qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ru'uusikum wa arjulakum ila alkaabayni buur a ngi wax naan yéen ñi nga xamee ne yéen a gëm yàlla mu ne boo leen jógee nag pour julli na ngeen raxas seen kanam raxas seeni loxo ba ci conc yi masaa seen bopp waaye ngeen raxas seeni tànk euh, buur a ngi wax ba tey naan wa in kuntum junuban fa taxaru mu ne bu fekkee ne da ngeen am janaba wala ngeen gis dereti mbërëk ba set wala dereti gisin ba set su boobaa nag da di sangu sangaayi farata pour mën a julli loolu nag ndox moo koy def euh, bu dee am na kon façon ndox bi nga war a war nga koo xam moo tax mooy bunt bi njëkk ci suñu téere bii nii ndox yooyu nag euh, ci lislaam dafa xaaj ci ñetti xaaj dafa am ndox moo xamee ne tahuurun la mooy ndox mi nga xamee ni dafa laab te mën a laabal ndox moomu mooy bi nga xamee ne cosaanam li amul dara lu ci changé moo xam ndoxu robinet la moo xam ndoxu géej la ndoxu teen la ndoxu dex la mooy ndox mi daal cosaan li amul lenn loo xamee ne daal dina ci changé du cafga gi du xet bi dara changé wul ndox moomu mooy ndox mi nga xamee ne nag moom nit ki mën na see jàpp mën na cee sangu sangaayu farata mën a julli ndox moo xamee ne nag dafa nekk ci ay sayaan wala mu nekk ci place boo xamee ni dafa am ban ndox yooyu moom it mën na laabal ndax ndox mi moo ko fekk si si palaasam boobu kon bu fekkee ban bi dafa changé xet gi wala cafga gi du ci dara ndox moomu laab na te mën naa laabal wala mu nekk ci ay sayaan walla ay fo ay garab sax ndox mi nekk fa mu jël cafka garab googu ndox moomu mën nañ koo jëfandikoo ci jàpp waaye mën nañ koo jëfandikoo ci sangu set ndox mi ci topp mooy taahirun maun taahirun mooy ndox moo xamee ne laab na waaye moom day mënula laabal ndox moomu nag mooy mi nga xamee ne dafa rax loo xamee ne lu dagan la nu ki mel ni diwliñ sotteeku ci soow sotteeku ci ndox moomu mën nañ koo naan mën nañ koo toggee waaye ndox moomu kenn mënu cee jàpp ndax xet bi ak cafka gi soppeeku na te li ko soppeeku nekkul loo xamee ne dafa dëkkaale ak moom waaye li ko soppi ñun ñoo ko ci daal di def ndoxu ñetteel bi mooy maa un najis mooy ndox moo xamee ne moom laabul te mënu laabal mooy ndox moo xamee ne li ko rax lu sobe la sobe moo ko rax ndox moomu nag moom mënta laab te mënta laabal mënoo ko toggee mënoo cee sangu te mënoo cee jàpp loolu moom mooy maa un najis euh, ndox moo xamee ne nag euh, par exemple tey déeg wala euh, sayaan wala mbalka mu rëy loolu nag sobe bu tuuti bu ci duggee yàqu ko ndox momu mën naa laab te mën naa laabal loolu nag euh, abdallahi ibnu omar mooy ki nga xamee ne moo ñu ko nettali radiallahu anhuma mu ne yonent bi nee na ida kaana al maau qullatayni lam yaxmilil xabas kon ndox daal su fekkee ne dafa bëri lool sobe bu tuuti daal di ciy dugg loolu euh, yàqu ko mi ngi mel ni teen tey su fekkee ne dañ cee sotti sobe euh, sobe boobu taxul ndoxu teen bi bañ a làpp ndox mi daal di nay làpp euh, kon daal suma la koy tënkal damay wax ne ñetti façon ndox moo am ndox mu làpp te mën a laabal ndox momu mu ngi tudd lii ndox kese la ak ndox moo xamee ne làpp na te laabal ndox moomu mooy danga naan ndox ak mooy ndox mi rax na waaye la ko rax loolu lu dagana lekk la wala lu dagana naan la beneen ndox bi leen ñetteel nag mooy danga naan ndox ak waaye nag ak boobu mooy li ko rax sobe la su boobaa ndox moomu kenn mënu ko jëfandikoo ci aada waaye kenn mënu koo jëfandikoo ci diine mbokk yi yàlla na yàlla def si ñun dégg ak topp def ko ci yéen yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne li dëgg la ñu daal di koy topp mu wan ñu ay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la ñu wan ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu